mbokki Sénégal jàqare jeex na ci réew mi baylaat Fall borom këll bi këll ba lu ca nekk mu donde ci baayam donde ko ci maamam donde ko ci ay maamaati maamaatam baylaat fal borom këll bi kokki kër ngañ diggante Louga ak li ko wër ba Ndakaaru jàpp Cees xam nañu baylaat Fall borom këll bi borom kaaraange gi nee naa la borom bayre yi yow mi bëgg a sañ ci sa kër yow mi bëgg a am bayre yow mi bëgg a mucc ci cat musibaak balaa mucc ci làmmiñ bëgg mucc ci ay bët baa nga bëgg sañ kër baa bëgg sañ ci place baylaat gën a doy waar jooni jooni la koy fajee baylaat faal borom këll bi ku ñam jàpp wala saytaane baa rab baa jinne baa ku solu ngelaw baa ku rab jàpp dala ko dindil jooni jooni baylaat borom këll bi daal yemul ci loolu ñu ni baylaat ci lu mu nekk mu ni bay kaaraange yi yow mi bëgg mus wala xoob wala jaaro xaqiiqa lépp lu jëm ci xeetu kaarange bayra daal baylaat borom këll bi amu ci morom mën ngeen ko woo ci numéro téléphone lépp lu jëm ci wàllu daal ñu naa fajum cosaan daw leen ci baylaat borom këll bi yéen ñi nga xam da ngeen a néew kàttan ci seen néegu sëy yow mii di góor baa jigéen wala jigéen sax ju tëju bañ a am borom kër dawal gaaw ci baylaat borom këll bi kokki kër ngañ moo ci gën a gaaw jigéen ju tëju baa góor gu te am doom dawal ci baylaat yow mii amee hémorroïde baa jàngoro kajoor ndoxum siti baa faru rab baa coro rab dawal ci baylaat borom këll bi ku la dugal xalwatu ñu ni bàyyilaat borom këll bi amu ci morom gisaane ci suuf jooni jooni seetal la ba mu leer nañ wax la lu leen lu dul dañ bàyyilaat daal borom këll bi moo ci doy waa Sénégal kokki kër ngañ man ngeen ko woo ci numéro téléphone yi 77 159 wala 77 276 22 63 wala 76 684 63 74 bàyyi laat borom këll bi daal kaaraange daal amu ci moroom ma ni jaaxle daal jeex na ci réew mi yéen ñi nga xam yéen a bëgg seeti bàyyi borom kaaraange gi bàyyi laat faal borom këll bi nee naa la këll bi jooni jooni mbóot ma lépp a nga ca biir këll ba yéen ñi nga xam da ngeen bëgg ñu seetal leen jooni jooni yéen ñi nga xam da ngeen a bëgg li saxaar place bi ngeen bëgg a dugg baa oto bi nga bëgg jënd wala kër gi nga bëgg a jënd dawal ci bàyyi borom këll bi jooni jooni bàyyi laat daal ñenaa la mooy borom këll bi jooni jooni amu ci morom lépp lu jëm ci néew néew kàttan néegu sëy baa far rab baa nga tëju baa li nga xam ni moo di bayra ñee naa la li nga xam ni moo di xoob li jëm ci ndomba kaaraanga yi dangaa bëgg a am kaaraanga ci réewum Sénégal ak fi mu toll yow mi bëgg a am bayra ci réewum Sénégal ngay jaay munoo jaral bàyyilaat borom këll bii ay waay mi ngi yëngal Sénégal ak këllëm bi mu donde ci baayam donde ko ci maamam maamaatam bàyyilaat faal borom këll وهب لنا